UNESCO si conférence bi ñu en 1999 la ñu jël décision que maintenant année bu la célèbre journée boobu et commencé nañ depuis 2000 mun nañu que le mandat de l'UNESCO est UNESCO à paix de la culture y a depuis des décennies mais pour nous il faut que diversité culturelle soit ñuy wax boobu et Sénégal nous xam même si dans dans le monde que langue moom mooy li ñu wax ne vecteur langue bi rek moy tax ne que culture bi mun a wéy moy tax ne également xalé bi bo xamné ne ñëw na ci biir école bi ci première année yi su dee jël nañu langue française bi ak langue bo xamné ne mooy entre guillemets moom la namp euh, en tout cas kat yi ño xamné ño moy spécialiste. yi gëm na ne que dina tax ne que xalé boobu mun a am ay résultats yu baax donc mun nañu wax ne que langue yëpp nag ño yem moy dagal dignité fii si Sénégal en tout cas jël nañ si ay réflexion yu mat ba am nañu dem nañ ba wax ne 25 langues nationales la ñu am mais si ñoom 22 yi daal codifié nañ leen ba pare et que 14 sax ñoom dem nañ ba am seen décret di wax ne que loolu nag commencé nañ ko du tey parce que soo jëlee assemblée nationale déjà jël nañu léegi xam naa da ngeen koy gis chaque fois suñu demee assemblée nationale am na lu ñuy wax ne interprétation simultanée mooy sooy wax jël nañ fa 6 à 7 langues ñoom directement dañu traduire lu wax foofu ci assemblée nationale mais jël nañu aussi constitution Sénégal boobu aussi ñu defaat ko ci langue nationale yi règlement intérieur assemblée nationale mooy loi parité bi loolu yëpp même suñu code électoral euh, transformé nañ ko donc ci suñu langue nationale yi di wax na nag si wàllu jàng en tout cas commencé nañ ko yàgg na depuis 1970 ñu ngi woon donc ci dispositif boobu di wax na rek ñun gëm nañ ne que éducation jëm nañu ko pour que ñu am ay résultats yu avant muy commencé jàng première année bi deuxième ak troisième année bi laaj na ku ñu jël sa langue maternelle entre guillemets ak français bi pour que nous mun a am résultat et d'ailleurs aussi am nañ fi modèle boo réfléchir xool mooy li ñuy wax ñaari langue bilinguisme ñu def ko amul Sénégal nañu wax ci école dispositif moyens bobu ñu ngi koy jéem a yaatal en tout cas si biir Sénégal donc loolu dispositif la bu bees la bu am solo def nañ ko si langue nationale yi. lii nag ren bii mooy vingt-deuxième année boo xam ne ñu ngi feete jour boobu euh, journée boobu mais malheureusement dafa daje Covid su dajewuloon Covid du fii lañ koy defee donc di wax ne rek en tout cas président de la République jël na engagement moom moo jël engagement moo ñu jox ay orientation yu leer ay décision nee na na ngeen fexe ba lu ngeen ci def ngeen assurer fii si biir Sénégal mooy li ñuy wax ne promotion des langues nationales. et donc bi ñu jëlee thème bi ñu ne léegi nag si wàllu thème bi ren nañu fexe ba li ñuy wax ne politique linguistique fii si Sénégal dans le domaine de l'éducation ñu mun ko installer. donc en tout cas loolu moo taxoon si journée bi man jël naa décision ñun ak ministère bi yëpp pour que ñun ñëpp ñu taxaw ànd ak linguistes yi chercheurs yi professeurs nous ñoom tous ñun pour que la langue nationale au niveau maternel ñu mun ko installer fii au Sénégal mu gën également parce que nous nañ ne que nous utiliser la langue nationale pour que suñu résultats scolaires yi gën